jërë ngeen jëf mbokki internet yi nga xam ne yéenay saxoo di bàyyi xel nga Média TV ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen comme ni ñu leen koy baaxoo di leen ko amale ci événement tabaski bi eh, di leen seet li ñi nga xamante ni ñoom ñoom la ñuy tudd di tudd événement tabaski bi te ñuy taaral doomu aadama yi muy ñuy jaay xar muy ta muy tailleur yi muy ñi nga xamante ni ñooy jaaykatu tiise yi tey nag dañ leen wàccal ci tailleur yi ñëw fas yéene waxtaan ak ñoom kii di kii ñu leen di eh, wan nag eh, fas yéene ko dégg ko micro duñ ko présenté kenn fii ci Touba muy Moundooy mën a ñëw lool waaye teg ko ci temps Euh, mu mel ne moom mi ngi ci wàccaay tabaski bi nii bu ko defee dañ koy jox suñu micro waxtaan ak moom ci événement tabaski bi salaamaaleykum. waaleykum salaam sama jëwrin. Cheikh maa ngi lay nuyu di la maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. mun ndooy. waaw ziar nañ de. mu mel ne yéen a ngi ci tabaski bi euh, ni ngeen dundee tabaski bi instant yi comme client yi ak euh, lu jëm ci wàllu dagg beeg ñaw beeg. taxawaay bu am solo ba mu yéen a koy taxaw ci tabaski bi. waaw tabaski bi dañ ñu ngi ci góorgóorlu di ci liggéey xam nga parfois moom Sénégal dañuy xaw a yéex indi seen néew parfois quoi mais ren daa mën xaw nañu tane quoi parce que weer bi moo xawoon a sori nag mais instant bi ñu ngi ci liggéey bu baax a baax baax hmm. mu mel ne mun doy moom moom ñëpp miin nañ ko dañuy dégg turam fu nekk loolu lu waral loolu. mun doy benn seen boo xam ne bu Tuubaa la nekk moo tax maanaam di génn ay liggéeyam di ko wane fépp ci àdduna bi moo tax waa Tuubaa bi ràññeewu ko ba nga xam ne maanaam boo nee téyeer rek dañuy tudd seen xel dem ci mun doy quoi. ba chaque année su may def défilé de mode yooyu noonu du teewal sama tur quoi damay teewal Touba xam ne suñ Touba moo a lépp daal. Mm-hmm. mu mel ne yaa ngi ci Touba waaye di sàmm war may Touba ak dëkk beeg yooyu waral ñaw yi ba doo koy fant fant yi kii ak yooyu noonu rek. waaw ah, fant yi moom comme ni ko sëñ bi waxee rek ah, ni nga ko bëggee noonu lañ koy defee ndax moo borom dëkk bi mm-hmm. mais am na yoo xam ne moom ñëw nekkuñu dëkk nekkuñu ci dëkk bi moom mën nañ am nañ droit defal leen liñ bëgg mais képp ku dëkk ci moom duñ ko mën a fant quoi koy def ni ko sëñ bëggee rek respecté respecté ko comme ni mu ko waxee rek waaw. Mhm. mu mel ne dañ laa fekk ci liggéey bi nii amoo temps sax duñ mën a yàgg ak yow mais ndax euh, clients yi ñi ngi ñëw dëgg dëgg dëgg euh, tabaski jàll ak bii nii euh, ban wutee la am. waa alhamdulilah bi jàll ak bii presque ñooy ñëw rek quoi parce que xam nga bu daan def ne tabaski ba mu neex dëgg dëgg dëgg mooy bañ daan nekk après nawet nga xam ne béykat yi dañuy jaay seen jiw jaay seen dugub lépp nga xam dañuy jënd seen bopp jëndaale seen yére. mais fu mu nekk nii fa nekk période boo xam daanaka maanaam xaalis pare amul lool lool daal ñu cëpp dañuy taqale rek quoi moo tax am na ñoo xam dañuy bàyyi sax pour màggal gi ñëw ñu defalaale ko benn quoi parce yenn frais yi day bëri ba bëggee jënd xaar jënd say bagage jënd bëgg a ñawlo fayal say xale day xaw a métti daal moo tax am na ñoo xam ne bu ñu daan def deux benn la ñu def quoi di bàyyi ba jamono gën a neex parce que instant bi jamono neexul lool lool lool daal. wax nga dëgg mun bu ñu bëggoon a xam mun Ndoye dëgg dëgg dëgg kan mooy Moundou Ndoye ak mun Ndoye ni mu mel ci réew mi fu ne ñu koy dégg ci télévision yi ci rajo yi mun Ndoye moom moom nan la def ba mën a siiwee noonu dëgg dëgg dëgg. <laughs> waaw Moundou Ndoye benn xale rek dëgg yàlla bëgg liggéey bi tam am jom nag te maanaam liggéey moom boo ci nekkee am jom boo ci amee jom rek suñu borom la ci jàppale quoi nekk xale taxut am jom quoi moo tax ñu ma nekkal nii sax su dama leen a conseil quoi man moom bu nekkee xale rek day joob liggéey. liggéey moo la mën a yóbbu fu nekk quoi moo la mën a àggale fu nekk mais xëy di nelaw wala xëy di ne ci yeneen yeneen man doxuma ci yooyu man fi ma dugg nii su ma xëyee taxaw fi ma taxaw nii su ma fi jigee quatre heures demtay daa jot ma ñibbaat xëyaat defaat noonu loolu rek moom ma tax genn fii mais fii du ma fi jóg mu ci àddina ah loolu na am na solo nag comme mu mel ne ni ko ni ñu ko waxee rek mun dooy moom euh, li mu wax euh, mat na euh, sën bu nekk man ca mën a bàyyi xel ci li nga xamante ni loolu lay liggéeyee dégg ngeen mu wax ko maanaam Euh, gëm liggéey bi moo waral mu yegg fii mu yegg tey euh, noo def ak euh, emprunté yi emprunté yi mel ne xaw naa ne neex naqaree nekkal dëgg-dëgg mais yow noo dundee ñoom. waaw emprunté yi moom xam nga rek moom ay xelal lan te xale yi moom li nga war ci ñoom mooy leen wàññi rek di leen teg ci yoon parce que ay gone lan seen xel matul quoi mais li nga leen di bëggal ak li nga leen di conseil wala ñu ko mën a xam dëgg dëgg dëgg bu nu yore seen at le bopp la ñuy xam ni maanaam seen patron moom lim la leen daan wax lépp lépp. maanaam pour seen njëriñ la daal seen njëriñ la parce que maanaam jàngi métier yombul parce que jamonoy léegi jàppal ni suñuy jàngi métier rek dañ ci wut xaalis te xaalis bi mooy mujj daal man mii may waxee yow ni ba ma daan jàngi métier ma daan dox di jógee Bukaas dem gaaras Dakar te tey jii fi mu doon yàlla dimbali moom su may liggéey maa sama kër bopp sama oto laay war di xëyee ko wàcc te dama daan dox ba sama daal di dagg jël fi ñu feer ñëw ko loolu yépp am njàng woon mais teewut moo taxoon ma gëm ni war a maa àgg fenn fi war a suñu borom dimbali ma ci loolu waaw. macha allah loolu am na solo lool euh, diggante ñaw góor ak ñaw jigéen yaa ngi koy def ban nga ci gën a mën ci sa dëgg-dëgg. mais ñi ngi def góor ñi waaye jigéen daal lay gën a doxal quoi xam jigéen ñi ñooy gën a parce que góor ñoom parce que ay événement yooyu noonu bi dee jigéen ñoom chaque jour ñi ngi ngi ci xew yi ngi ci programme yi ngi ci takk yi quoi moo tax ma gën a yi ci ñëw jigéen ñi daal waaw yow daa waaye jigéen nga xaritu jigéen ñi nga daal waaw waaw jigéen ñi moom samay xarit lan samay partenaire lan moom waaye góor ñi tamit mooy loolu ba tey sorte def si loolu waaye bëgg rek boo ñëwee ñu defal la ko ay xabtaan ay grand boubou euh, euh, ni ñu koy waxee euh, yaakaar na ñetti Abdou lañ koy wax yooyu nag xanaa aay nga ci loolu de moom. waaw aay naa ci parce que bii maa wax la sama bopp. moom defale woon quoi defale woon Dakar la waaw. waaw mais ku mais ngi ñu ngi def yu gën a garaaw sax waaw ñu ngi def yu gën a garaaw garaaw. yaa ngi faral di def défilé yi ba léegi nii. waaw ñu ko def ba léegi nii bi jàll nag defoon nañ ko mais bi organisation bi ki ko war a def dafa nekk Paris moo tax mujj na ko def mais xam naa ne dañuy bàyyi ba beneen yoon incha allah waaw. jaajëf kon ñu ngi lay jaajëfal mënuñ laa téye ndax li nga nekk ci liggéey bi euh, Ngabou Média moo la seet si woon fas yéene def ak yow waxtaan waaye wane liggéey bu am am solo bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey liggéey bu sell bi dañ lay dégg fu nekk rawat na nga nekk fii ci diwaan bu Touba Touba koo wax wax dëkk Serigne Touba Xaadim Rasul jigéen ñi dañuy ñawlu waaye am na ci yoo xam ne si daanaka yu bëree bari euh, dañ leen koy aaye mais teewul nag yéen yéen a ngi ci dox ay tànk yu am solo ngir Eh, eh, borom dëkk bi li mu bëgg ci dëkkam bi kon lan ngay wax waa ba ak ngaa bu Média mi nga xam te moo ñëwoon fii sa bërëbu liggéeykaay seet si la waxtaan ak yow. waaw Ngabou Média moom lañ koy wax mooy dafa nekk site boo xam ne site bu am importance la diine ak jamono loo bëgg rek ak programme boo bëgg rek boo demee ci site bi da nga ko fay fekk parce que nekk na site boo xam ne ba mu juddoo yàggul waaye amaana ñi ko raw bëriwut moo tax liñ leen di ñaanal mooy ñaanal la ba ñu ay télévision yu mag a mag a mag a mag. parce que maanaam ba mu juddoo yàggul mais léegi turam ñu ngi koy dégg fu ne ci àdduna bi partout daal le monde kon la ñu koy defal mooy di ko ñaanal sibbi bu dewee ne mu yokk bu baax a baax a baax ba ay bagages yu bëri bëri yokku ci te incha allah mi ngi tànk yooyu xam naa ne tànk kanam la mu tànk ginnaaw xale yi fi nekk tamit ñu ngi leen di ñaanal seen liggéey rafet na macha allah am ngeen yar am ngeen teggin nekk jeune nag taxut am jom yéen seen yi am jom ngeen am talent li leen ñaanal rek suñu boroom fa ngeen bëgg egg mu eggale fi ci kàttan yàlla suñu borom waaw kon baax na mi ngi noonu mun doy kàddu yi am solo yooyu nga xam ne yëkkati na ko ñi ngi koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal liggéey bi muy liggéey fa mu ci bëgg yegg suñu borom bi teg ko loxo mu yegg fa waaye déggoo ak client yi rawat na emprunté mi nga xam ne ñoom lay liggéeyal kon ngeen jëf mbokki internet yi ba tey ni ñu leen ko waxe woon fii ci biir marché Ocass fas yéene nag waxtaan ak gaañi ci tolluwaayu tabaski bi fii ñu dugg nag ci biir bir euh, place bi muy cheikh makeup cheikh di def lu amana ci soxna yi euh, bu ko defé dañ koy jox sunu cadeau mu nuyu ak mbokk internet cheikh ñu ngi lay nuyu la ziar. ñu ngi lay fay ñu ngi ziar ñepp ño xamni ne ngi sétane sunu client yi di len bëggee ci événement bi di len siyaar bu baax yeen ñi doxantu ñew sét suñu jaajëf jërëjëf euh, Cheikh May keub lañ koy wax di liggéey liggéey bu am solo Cheikh ñi ngi ci événement tabaski bi amoo len temps dañuy taxaw waxtaan ak yeen rek ci tolluwaayu tabaski bi ni ak soxna yi ni ngeen ni liggéey ni doon na loo xam te jigéen ñoo ko gën a euh, ndax mi dox dëgg dëgg dëgg dëgg waaw ah, wax dëgg yàlla ñi ngi sant yàlla bu baax baax baax ñi ngi sant bu baax wa dëgg yàlla parce que li événement bi moom daanaka dañ ci soxla yi bu baax waaw boo gisee fii rek xam ne ñu ngi sant bu baax wax dëgg yàlla waaw xanaa di ñaan yàlla gëna a gën a gën a rek gën a barkeel rek. mu mel ne kon soxna yi ñu ngi ci euh, dugg beeg génn bi du ngeen am temps sax ni ñu leen ko waxee léegi waaye ay may këpp yooyu nga xam ne soxna yi il faut ñu taaru yaa leen koy defal. ndax ñoom dëgg dëgg dëgg dëgg bëgg gi comme ni ñu koy bëggee ndax ñu ngi koy wër si fii nii. waaw ñu ngi ñëw fii bu baax a baax xam nga ñun moom daanaka luñ jaayul rek baaxul. ko bëgg lu baax moom si dëkk beeg li ko wër sous région bi yëpp fii ngay ñëw waaw waaw wax dëgg yàlla ndax ñun dañuy jaay qualité di jaay ay marques yu baax daanaka ku bëgg marque rek si Sénégal si jur Bawol gi fii ngay ñëw ay poudre yu jóge Amérique ay fond de teint yu jóge Amérique daanaka suñ li ñuy jaay moom lu si ëpp Amérique lay jógee te ñoom qualité la ñuy wër moo tax daanaka fu ne la ñu bàyyi ko di ñëw. ndax mën nañoo xam dëgg-dëgg Cheikh Makeup lan ak lan lay jaay ci li soxna yi gën a bëgg. Cheikh Makeup moom boo nee Makeup rek jeex na. boo nee maykab rek daanaka daa ëmb ay domaine bépp moo tax ñu may wax seex maykab ay poudre ay mascara ay rosa ay fond de teint original ay élégal ay rosa mélanie original ay sa ay yu ne daal lu ne ñu ngi koy jaay fii yi ñu jaay yëpp sax mënuñu kaa lim wax dëgg yàlla ndax doo xoolee matières yi ni mu bëree nii daanaka doo mën a lim lu bëri da ngay lim yenn yi rek mais boo nee maykab rek daanaka dëxëñ na lépp boo nee maykab rek lépp dugg na si biir quoi lu dul événement muy dox ak événement bi nii ndax lu dul événement lay gën a dox wala événement bi dëgg-dëgg lay gën a dox ndax bu dul événement ndax euh, ni war a doxee nii dina ko doxee. waaw wax dëgg bagage yi moom événement lay gën a dox mais bu dul événement tamit nag xam nga lii moom jigéen ñi dañ koo bëgg ay salon yi xam nga moom daanaka tout le temps ñu ngi si événement muy euh, jigéen ñi su euh, mariage yeeg takk yeeg ay ngénte yeeg yooyu daanaka chaque jour rek ñu ngi ñëw ak ñiy jënd di defaral seen bopp moo tax chaque jour moom wax ngi ngi ngi ñu ngi doxal. ñi ngi dox événement nag lay gën a dox moom mais ñi ngi doxal chaque jour. jaajëf bu ñu a xam Cheikh place am fi mu nekk ci dëgg-dëgg ngir ñiy seetaan mën a ñëw euh, ba euh, fii nii wut si ci marchandise bi. Cheikh Maykam nag mi ngi marché Ocass angal naana foofu koo fi laajte place Cheikh Maykam marché Ocass moom boo fi tegee sa tànk ko ne place Cheikh Maykam rek mu andi la. marché bi yëpp foo duggee si si si quatre quatre côté yëpp foo duggee rek. angal boo duggee boo ne place Cheikh Maykam ñu andi mais nag fi nga xam si ne mooy sees bi moom si angal naana fi ñuy jaayee guré gi foofu moom fi lañ nekkee ndonga fi yoroon ay taabal ba tey yàlla di ñu suturaal ñu ay magasin waaw moo tax daanaka foofu lañ ñu gën a xamee et tamit fi lañ ne ubbi place tamit foofu lañ ko yor waaw moo tax foofu lañ nekk quoi. kon kon ñi ngi lay jaajëfal Cheikh Makeup bu ko defee nga joxe kàddu gu mujj gi Ngabou Média moo la seet si waa waaw jaajëf di wax ah, client yi nga xam yàlla dogal ñu seetaan vidéo bi rek mm-hmm. Cheikh Makeup mu baax mi moo leen di ziar di leen nuyu lu bari di leen di leen di leen ah, woo ngeen gën a ñëw mm-hmm. di baalu àq képp koo xam a ngi si seetaan nga vidéo bi rek gis ñu si ñu ngi lay ziar di la baalu àq di ñaan yàlla gën ñoo dolli bu baax gën a dolli ñëpp jaajëf nekk si jàmm baana kon Mahmoudan Salih moo nekkoon ci caméra bi tey Cheikh Makeup lañ seet woon fii ci marché Ocass muy jaay ay makeup yu am maanaa tudd na ko léegi li jigéen di yittewoo ngir taaruwaay kon ñëw leen fii ci àngal naana ngeen seet si ko Cheikh Makeup defal leen lu baax leen nit la ziar waaw maa ngi lay delloo la fii daal may seen cuuraay kër xaadim seen cuuraay kër xaadim mu mel soxna yaa fi eh, te yéen li ngeen di jaay yaakaar soxna yi ñoo koy yittewoo eh, waaw kon léegi yow nuyul internet bu ko defee nga ñëwul ñu ci bagage nga xam koy jaay jamono tabaski fi bagage jaay si tabaski moom allah bari na fi lool te xale jigéen itam ñoo ngi ñu leen di jaay si baax baax yi en même temps tam ñu ci bi

yu mel ni ay genre ut yooyu noonu dañ koy taal bu baax. ndax mën nañoo ànd ak yow nga wàññi dëgg-dëgg cuuraay yi nga xam ne mooy yi nga xam ne moom la soxna yittoo. waaw loolu moom si yow la des man. kon bu ko defee Mahmoudane Saliou da nga topp mu wàññi yi nga xam ne nii mooy baax baax yi kon aji bisimilah nii ñëwee noonu biram amta biram daal ñu ko daal daanaka ñu ñaar la daa ay kër dafa bëri ay kër daa bëri ay kër mën naa indi ay biram ture ak ñu jaare nga indi bu baax a ba na ko ko ñun duñ jaayee cher fi moom naa xaar ci yaay képp ku bëgg yëngu bu yëkkee ci rek. Ah, ah. mooy loolu lu si sonal. Ah, léegi euh, fàttali tur bi ñi nga xam si. xam nga mooy moom la si am moom la si taal kii mooy seen kuréel te xam nga jiw waaw léegi euh, wa wàllu waay yi jigéen ñi wan wax ngeen ko gën a yittewoo. Ini చేయించారు Kawan-kawan, kawan 你不是我们家的，你不是我们家的。哎，现在过来，我们家的，你不是我们家的。怎么？谁家的？我们家的。我们家的。 Bara ma ñëw. lii moom ay pomme sambur quoi pomme sambur yi qualité Touba bi réew. da ngay wër àdduna bi dund bi kii bëri la day dox vraiment jàpp na waaw waaw waaw kon yii daal yu am kalaas yi daal. lii moom macha allah lii moom. Rogo xam tegtal la. tegtal ma rogo xam. juróom di meja, bi meja gis moom mooy meja bi meja jàng laa ñu. ñu ba mu tam rogo daa am meja tam. daa am gaam dafa am gaam. waaw dañuy jaay ay gaam mooy loolu waaw. ok seen cuuraay kër xaadim ñaata place ci marché bi. macha allah place marché yi am na fi ay place mais bu mag bi daal léegi kon bu ko defee dañ lay rek nga euh, àggale liggéey bi nga am média ñëpp ñëwoon seet leen yu baax yi ngeen waaye tabaski bi xaw ma daal sama soxna ñu ngi lan ngay wax ci waaw soxna moom di ba am ngeen soxor rek. non bi moom mooy quoi lépp lépp lu jigéen di soxla ci biir nekk am na si. jërëjëf Ngabou Média waaw waa Ngabou Média ñoo leen di sant di leen gërëm xam ne dañoo bàyyi suñu yitte yëpp bàyyi bërëb yëpp ñëw ba fi comme dañ leen di sant di leen gërëm baax na kon jaajëf.